société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse dali na ñu ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu ginnaaw bi ñu génnee ci élection législative yi gars ñoo ngi xaar ñu tas gouvernement bi defaraat ko remaniement waaye nag ba pënd bi wuréegu la njaw ma ngi wéy di desu xam kenn ku nekk fi mu nii yaa ngi def loo man di dëbbal dëbbala xeex bu métte métte moo a Sall nag lépp lu mu na a ngir nag ba ñu ci gouvernement bu yees bi nga xam ne ñoo si nekkoon te ñàkk ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn Macky Sall dina ko jéema te nag bu ñu fàtte ne Macky Sall la ci lu jëm ci wàllum politique réew mi quotidien mooy wax nee na tamit njiitu réew mi di président Macky lu jëm ci ay manœuvre am loole nag néew na loola réew mi quotidien moo ci xëy ñëw nee na en tout cas li de Sall gars yi ñoo ngi def seeni nekk loo mën a lu jëm ci wàllum influence ci lu wër Macky Sall nga ca maa ngi ci yéen a kaay gii di leen fu xëy yaakaar jamono ji mën nañoo wax ne wàlla ma ngi wëy ndax nag ñi nga xam ne ñoo composé benn bokk yaakaar ay parti lañ yoo xam ne presque amutul benn parti boo xam ne la nga dese mën naa tax ñuy wax ndax bu dee nag ñii nga xam na ñooy waa APR maanaam parti la boo xam ne bu am ay jafe-jafe la parti bu lëj la kenn structuré wu ko bu dee parti socialiste ak ñi nga xam ne ñooy waa AFP ñoom tasaaroo nañ te dara deseetu leen yéen a kaay gi nee na Macky Sall nag nga xam ne ñooy transhumant yi ci ñooñu la te nag yaakaar bu tas la ci ndax ñi nga xam ne ñoo mujjee transhumé ñëpp dañu leen a élection yi yéen a kaay gi di Le Quotidien ñu xëy waa kër Abdoulaye Wade waa coalition wàllu Sénégal ñoom nag dal nañ ci kaw Pape Diop ba seen xol sedd nee nañu Pape Diop li mu def yëfu la waaye nag Pape Diop mënu ko woon a ñàkk a def xam ne ay libéraux yu bare bari def nañu ko ngir bañ ku leen daw dugg ci pouvoir bi noonee la Pape Diop def noonee la ko waa PDS waxee nee nañu Pape Diop dafa bañ ñu topp ko loolee moo tax mu daw a bokk gis-gis te nekk ca diwaanu Paris la France ñoom nee dem bi Pape Diop dem ci Macky Sall ñoom ànduñu ci leneen li gën a yéeme journal bi nee na Jaafara Sakho mi nga xam ne mooy suppléant Pape Diop moom tim àndul ci Pape Diop mi nga xam ne dem na fekki Benno Bokk Yaakaar tey bu Pape Diop démissionné woon Jaafara Sakho mi nga xam ne mooy moom nee na àndul ci li Pape Diop def yéen a kaay mi dem ci Macky Sall loo ci xam Déthié je n'ai aucun commentaire à faire noonu la ko Déthié Fall waxee yéen kaay gii di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall nag ba léegi ma ngi ami jafe-jafe naam Pape Diop fekki na ko ndax Macky Sall xam na na li nga xam ne moom la rawee opposition bi maanaam bëriwul ndax Macky Sall 83 la am opposition bi yëpp 82 Macky Sall nag il faut muy saytu di neexal ñi nga xam na ñooy allié yi ndax nag saa su nekk allié yi mën nañoo beenu mën nañoo beenoo mën nañoo am ak jafe-jafe Macky Sall te bu boobaa nag musiba ma ba kumba rek la koy jural lambay ñaawa yéen kaay gi di 24 heures nee na ñi nga xam ne ñuy waa Aar Sénégal ñoom Thierno Bocoum Thierno Alassane Sall docteur Abdourahmane Diouf ñoom nag démb génn nañu ab communiqué nee na ñu tey la ñu gën a nekk ci opposition bi yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na Pape Oumar Sakho mi nga xam ne moo jiite conseil constitutionnel moom nag war naa dem retraite moom Pape Oumar Sakho nga xam ne moo jiite conseil constitutionnel waaye nag ba léegi demagul retraite loole nag tax na coow li bëri na ci loola yéen kaay gi de la Tribune nee na élection présidentielle 2024 Khalifa Sall ak ki nga mooy Karim Wade bu ñu góorgóorluwul seen i candidature maanaam du mën a nekk Khalifa Sall bu ñu du ñu nekk candidat ci élection présidentielle i kaay gi de la sa nee na am na rapport OFNAC boo xam gi nga xam ne moo am ci wàllum suuf ni ñu koy joxee ci Ndakaaru ak ca diwaanu Mbour yéen i kaay gi di li quotidien nee na hôpital Aristide Le Dantec bi nga xam ne dañu ko nar a am na nag ñu bare ñoo xam ne jamono ji am nañu si nag ak njàqareeg tiis est-ce ñi nga xam ne ñoo feebaroon nekk hôpital Dantec bu ñu leen fa jëlee ndax toppatoo gi ci war ndax dina ca ama ñi nga xam ne nag ñooy waa SOS consommateur ñoom maître ma soxna kan ñoom nag nee nañu danañu porter ji plainte ndax anam bi nga xam ne moom la ñu tëjee hôpital Dantec ak a nga xam ne moom la ñuy sàgganee ñi nga xam ne ñoo feebar loolee rafetul jaaduwul Ligue sénégalaise des droits humains ñoom ñoo ngi sàkko malade yi nga xam ne ñoo nekkoon hôpital Dantec maanaam ñu jëleen ñëpp ak fu leen mën di yóbbu kaay gi di direct news nee na gi nga xam ne ñoo ambu consommateur animateur yu Sénégal ñoom nag ñoo ngi alerté nee na hôpital bi ñu tëj boo muy tuule nag ay malade yu bare ci faatu yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu police nationale bu Sénégal ca diiwaanu Kédougou am na ab réseau boo xam ne réseau de prostitution la maanaam ak kuréel goo xam ne dañu doon jaay seen bopp am na ñeenti jigéen ñoo xam ne ñi nga xam ne ñooy police bu Kédougou rocc na leen journal ko xibaar yéen kaay gi di na Premier League ca Angleterre tey jii la match Chelsea Tottenham première pour Kalidou Koulibaly yéen